من جميع Не бог не не пропадает.

لبان كون المختار يسأل لكل من خفد روثا خدمته فوق كل رقبة من السخار الخلق كل من خبا من بمن محمد نملم في الدنيا كندك مل في الدنيا لم يدل مثل المستوى محمد سرا وجهرا في البرايا يا صمدي مدى لنا إسلام والكفر ما وبنصيحتي بكل سماء فتى المقاصد لما حوت من مد خير ماجد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi sëñ Murtada Mbàkke mii di ko sant di ko gërëm ndax li mu ma defal yaakaar naa ni bariwul ñu mu ko defal waaye nag euh, boo gisee lii am danoo fekk maag moom mii garab goo xam ne dañu koo jëmbat garab ga ku ko jëmbatoon maam borom Touba ak Seex na Seex Saadbu ndax ba Seex na ba maam borom tubaa jógee di dem ca géej ga Cerno Seex Saad bu def ko bind leer te tànni ko ci géej ni ko yaa ngi dem leer gu naññ nga fukki bu mel ni weeru fukki fan ak juróom booy dellu si ab jant ngay doon ku la bëggul bu ko fi fekk la doo ko fekk garab googee ñu jëmbatoon nag dañu ko bàyyi woon kenn rooseetu ko woon bi yàlla defee jàmm ma nekk ci xalifa gi jël xalifa ak yi Mat Jimbira sama baay Tuubaa laa jëkk a dem awma lu may ndox ngir dem di roose garab googu mooy seede si ba ma tàmbalee lii ak léegi ñaari weer avant ñuy um koor sëñ bi dig ma ngan ma takk sama ndigg lii di xalifa ñu naan ma bul jóg bul def nii bul toog waaye dama leen ni damaa gisul bu sëñ Touba doon dund tey benn xalifa ak loo mën a am ak sa maqaama ci senegal nga jàkkaarloog maam borom Touba mun la liggéeyal ma nga ne ko duma ko def loolu moo tax ma takk sama ndigg di liggéeyal sëñ Touba bu ñu fi jógee du dindi dara ci man du dindi sama xalaafa du dindi sama maqaama du dindi sama daraja sëñ Touba rek ma tax di liggéey ak Seex na Seex Sadbu ku ma ci bëgg fal alhamdu ku ma ci bañ jagaas ku ma bëgg ci sëñ Touba baax na ku ma ci bëggul ba ak sëñ Touba ak Seex Seex Saad Bu kere bi may def ngan gii dama bind ay lettre am laajuma kenn dërëm bu bënn sama budget la préparé ba mu mat sëkk ni laajuma kenn dara bind ay lettre ñi leen dina am gan ñëw leen teerul ma ko leen ma ko ba ma dalee liggéey sëñ Touba ba nag maa ngi tedd te kanam la jëm man nag gañe naa leen ndax am naa ñaari ngan kere bi mu bi ko ngan maa leen ëpp ngan ndax kere bi mu fommee muy ndigal mu jot ndigal mu ni ko defal ñu jox ko ndigal mu am lu mu war a def mënoon na maa téléphoné mënoon naa yónni ndaw ci Kébémer gi waxu Touba waaye dafa fàq moom ci boppam jóg taal otoom ñëw ba fii fekk ci ma ba mu génnee Daaru Musti dafa ma ne maa ngi maa génn naa Daaru Musti ñëw nekk ak man fii ñëw ni ma damaa ñëw bokk nu bokk toog waxtaan ba seet beneen date ma ne ko sëñ bi mu naa ma ne ko ginnaaw jàpp naa date ba annoncé ko ba noppi danga may dimbali yebalal ma sa doom wala sab jarbaat wala délégation ñu ñëw mu ni ma déedéet maay ñëw waaye réccuwuma ko de Mbàkke ma daal koy fomm waaye nag tubaab def ni reculer pour mieux sauter mooy lii tey boo bëggee tëb ca kaw da ngay dellu ci gannaaw pour mën a tëb miir bi Mbàkke Balla jërëjëf waaye nag na xam ne yii ñëpp lu ma fi waay jox mbaa jox ko ko sëñ Touba ngeen ko jox lu fi waay liggéey moom la ko liggéeyal joxu kenn joxu ma dara kon maa ngi sant yàlla ak yonent sama bare ak sama ndey ak samay jigéen di ko sant moom mi di sant sëñ Murtada Murtada Mba Muntaha mi nga xam ni mooy sama wëllëre fekk naa ko njaareem fekk naa ko Touba te ginnaaw yàlla gante buy woon ak moom lii du am Mbàkke jërëjëf maa ngi lay sant fan alhamdu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Cheikh Baye Cheikh Cheikh Saad bu mi ak sëñ mu taw nga xam ne mooy doomu sëñ Fallou maa ngi wax benn seede man fortaatu wu ko kër gi am naa ci man 40 fii ci njibira gi wax bi may wax nag maa ngi ko nangoo ci Cheikh Mamour Jimbira nee na seex na seex Saadu dafa jël sa baay yow ne ko kaay ma yónni ca sëñ Touba booba sëñ Touba ma nga ci yéen seex ma jëmbir a dem ci yéen fekki sëñ Touba nee na kër ba muy dugg ci yéen ma ngi fi ay ponkal ñoo ngi taxaw ci buntu ci mu ne bi mu nuyee sëñ Touba sëñ Touba yëkkati maam seex Anta maam seex Anta moo fa ne seex na maam sëñ Touba ni seex Anta ngaan ngaan gi seex na seex Saad bu yónni. demal nga tekkee ko fas wi nga jox ko ndox mu nekk mu seex seex ma dimbala wàcc maam seex anta jox ko loolu teral fas wa teral gan nga ba nga xam ne ma ngi tàggoo di dem sa neex seex sëñ Tuubaa seex ma dimbala nee na sëñ jox na ko benn mbuus boo xam ne xaalisu nguur du moo ca ne wax bi des ko war a wax wàññiwul dara wax xaalisu nguur du moo ca ne xaw ko ba demee loo wax seex saat bu maa ko ko wax gan gu mat ga ndaw lu mat ndaw nga loolu lii man man maa ko fekkee ci kër gii lañ ma ko nettalee fortaatoo ma ko ñemewu ma leen ba di leen neenal 40 ans def naa ko fii lu fi nekk rek maa ko tabax lu fi nekk rek maay bay tool ya nim saat xabru seet na sax saat bi liggéey naa ko ñaari yoon waaw kon Mbàkke ñoo ngi lay gërëm di la sant mënatuma laa sant nag lu sant sant gu la kii sant mënut a nekk waa jër jërëjëf sa baay sama loxo bii teg naa ko ca loxoom fii ci kër sa ñëwar bu sa yàlla na la fi yàlla bàyyi waaye bàyyi seex jimbi de yaa baax yaa am ngor yaa am teggin yaa am sutura yàlla na nga gudd fan sa bàyyi bi yàlla bu tàcc ki la ca kenn ëppale te nag wéluyu yàlla la seex na seex saat ba ne ko xaasu xaasa xutbu xutbu la moom mii seex na seex saat ba ne ko xutbu samaan a nii te xutbu samaan day atte jamono sa bàyyi seex na seex saat defal na ko li wax na ko li kon nag Jimbira noo ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla nun day réccuwunu lu doon tafu ci yow willaay ajam guddal fan waaye sëñ Moustapha yàlla na nga gudd fan salaam ala rasulillah ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool te wér Mbàkke ñi ngi sant dëkkandoo yi ak daayira yi ak képp koo xamante ni ñëwoon nga jàpp ci bis bi pour mu jàkk ñu fekk la muy Cheikh Mouhamad Moutala mi moom Serigne Khadim Awa Ba kon sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp ثم صلاة الله وسلامه على الذي مني لولا أقلام سيدنا سفينا المقدم عند الذي تسكن لديه قدم محمد وسيلتي وجنتي هن العادي ونسى وجنتي والي وسيدي الأبراري في الليل والمال بالتكراري هذا وقد قمة تعرف هين النبي بها كما تبر نويت من زلان خدمة تسر مصطفى به كفت معي مع كتاب والرسول الله سميت لا مع سبعي بيتا أو غيلا خد صرفت والملائكة يصلون على النبي يا نسينا من صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيدك حدك راجي بين يديك مسليا مسلما هلاك من الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أمرتنا بأن نزل على سيدنا من البرية ولا أمرتنا بأن نزل على سيدنا من البرية ولا محمد وأن نسلم على يا باغيا أبقيت سمدا على محمد وأن نسلم على يا باغيا أبقيت سرمدا على فسرمدا سلي وسلم يا كريم هني عليهم وتقضي معهم فسرمدا سلي وسلم يا كريم هني عليهم وتقضي معهم سلي عليه في جميع سبي مع سلام وتواب النبي سلي عليه في جميع الآلي مع سلام وسلم سؤالي واغفر لكل مؤمن والمؤمن لكل خير المؤمنات واغفر لكل محسن والمحسنات مغفرة لهم تقود الحسنات واغفر لكل محسن والمحسنات مغفرة تهزم من ظلم يا الله صل أبدا وسلم على النبي سقو خط سيدنا محمد والآل وسلم استعاذ من سيتانا ونور خروبك الأوتانا وفي باركت وفي سابا وعلي ومطر سابا وانزل علينا بركات البثمرة ولتغننا عن عزفة بعثبرة ولتغننا بكمال مختاري لنا بقرمة النبي المختاري ولتغننا بكمال مختاري لنا بقرمة النبي المختاري ولتغننا بكمال مختاري لنا بقرمة النبي المختاري سلي وسلم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 moom mii mooy jëwriñ ji mu ànd ceeg raqam yu baax yépp ba sëriñ bi ak dongo yi dafe ko ni ko sëriñ bu bëggee mu ñaanal ñu yeweeku te kenn ku ci ne xam na ni weeru koor wii kër sëriñ Touba Xaadim Rasool bi jàng xasaat yi nga xamante ni Cheikh Mamadou Muntaha da koy teeweeg sëtu sëriñ Touba yépp fu ñu tolloo ba waxtu bi ba war ñaan jot moom mii mooy ñaan kon kooku ku nu wóolul doon la teg ci yenn responsabilité yi Mbàkke ñoo ngi lay ñaanal nga yàgg fi loolu te wér ba ngir ba mu jàppee ngan gi ba léegi saa su ne mi ngi ñuy woo yaa ngi kebe meeram waaw ngan gi yéen ñëpp na ko fonk waaye nag moom mii mbakke daa baax lool te bis bi da cee wéetoon nag dañ ko cee seetaanoon lool jàmbaari Sëñ Tuubaa yi ñëw wallu si ko ndaxte lenn képp moo ko war a mooy ni mu féeteeg Sëñ Tuubaa Xaadimu ku jara ñaanal la eh bu ma kenn tuuse nan ma bàyyi ma développé waaw dafa wéetoon ci bis bi ku jara la billaahi la si laa ilaha illa dab na tij suba bay wax ak ñun bay tuur ay xéwal tey bi mu ñëwee gàddaafee gis mbooloo mi daa tuur ay xéwal te mu kàllaf la dam na ba démb daani boo leen ko deful ma futteeku liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasuul te lii fi am ci xilaafaam la am te du chance mérite la na ko ñaanal mu yàgg fi loolu téer Mbàkke man tey ci ngan gi laa jaxasoo ak moom waaye man a yow ba àjjana mbàkke ak kullu nag barke sëñ Touba ngir nag ñun kenn amuñu ku dul sëñ Touba te ñun suñu bëntu ci sëñ Touba mu Mouhamadul Fadal la borom ndindi borom Sam borom xayra borom Bogo Baye El Hadj Barak Serigne Modou Boussa Baye sëñ Atex Baye Cheikh Modou Moutada mii ñun sëñ Fallou képp la nam ku ñuy nax ci sëñ fallu nga ñuy naxe. billaahi lazi tey jii sëñ Abdou Karim raw lañ doon yónni bi ma tey ci 8 man ko nganuk sëñ Murtala gi daf ma ni bàyyi naa ko billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa barke Cheikh Ahmadou Bamba waaye nag moom mii daa baax lool Mbàkke Cheikh Mamadou Murtada zéro faute ba léegi mu ngi ñëw Touba ba benn bis mu ñëw Touba dellu si demen fa demen gënalu ko moom ngir ñàkk gaa xam ak ñàkk gaa xam dayoom ak ñàkk gaa xam wàccuwaayam mu ni toq ci sama nopp bi ma ne ko yoonu mu day ñëpp a baax waaye ki nga xam ne moom doy na ma moom ci kóllëre mooy Cheikh Mouhamadul Mourtada mu Cheikh Mouhamadul Fadil mu Cheikhul Khadim keroog bi ñuy dem dama ne ko moom sëñ Cheikh mi sëñ bi buñ ko woowee ni ko daneen fi ñëw dina dina def loo xam ne si dana ëpp waaye nañ ko bett keroog biñ ko bettee dikk ci sëriñ bi ma woo ko ni ko sëriñ Cheikh Jimbira dafa ñëwoon ngir siyaare si ak fasante kóllëre sëriñ bi daan ne ko euh, fi nga xamee ne moom mooy ndindi nga xam ne sëriñ Touba fala fala fala sancaloon sama wajur wu tedd wa laa bëgg mu fekk ma fa keroog bañ fa demee man ba ma xamee sëriñ bi yàgg na waaye bërëb booba keroog laa fa njëkk a teg sama tànk keroog sëriñ seex mi ci jat ci saase ci jataay bi daa xam ne booba gisagul sëriñ bi waaye nee na ma xam naa ki ñuy ki ñuy fekk ki ñuy fekki ku jafee gis la daan ma ne ko ndax lan mu ni ma ndax fekk nan mbooloo moo xam ne si ci kër ga ñoom ñëpp duñ koo bëggoon a gis ñenn ñi dañoo gaaw di daw di dugg ci oto yi ngir ngir bëgg koo gis biñ duggee. mu gisanteek sëñ bi saafoonteeg moom wëllëranteeg moom daan ne jataay moom moo ma waxal boppam mi ngi ni toog ni ma jataay bi bi ma ci toogee ba ni ma ciy jugee sëñ Tuubaa dong laa doon sentir moom mi moo ma ko wax ñu jugee ñu jugeeti fa ñëw mu woo ma ci bis bi ci guddi gi ñëwee woonoo ma ci ay yoon yoon ni sama xol bi ni mu seddee tey sëñ Tuubaa dong laa koy seddeel ñu toog ay fan ma jot li kàddu yooyu sëriñ bi sëriñ bi ni ko ni ma nee ko mu ñëw moom njaboot gi gane si ma sëriñ Cheikh daan ko li ma bëgg na ngan googu nga nga nga njëkkeel ma ko Mbàkke keroog bi nga xamee ni moom xew-xew yi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi rëy na ndax fu ne la nit doon dégge ngan gi sëriñ bi daan daan daan ni ma neel sëñ Cheikh nan woyefal yëf yi ndax man am naa ay kilifa sëñ Muntaxa sama kilifa la sëñ Abo sama kilifa la te bëgguma ñu may dégg ci lan loo xam si day nuru ni dama leen diir mbagg kon bu dee ak taalibe rek ci moom mii la tàmbalee ci la ndax ku xam yoon wi ni muy doxee bari na ñoñ tey ku leen woowoon ci dëkk danañ dem mbooloo ma fa daje loo leen woot loo fa woote ci mbooloo xeeb nañ ko keroog bim bi bim nit nit moo rocceeku dem ni ko sëñ da ngay ñëw Touba dangay ñëw Kébémer ci ndigalul sëñ Muntaxa mu ni moom du def dara lu mu si sëñ Muntaxa waaye nag dafa ñëw di seeti wëllëreem aw ak xarit ab xaritam ndigal ndigal ndigal dab ko muy ndigal lu jóge ci kilifaam mu daal mu daal di jàllale bis booba ndax kon kii firnde ji rek mooy la sëñ Tuubaa waxoon ca ca géej ga loola ca la nekk katabtu fil baxri anni laa amud yadi ila nasara abidil ma i wa tiini yadin li muhnin karimin nafi'in samadin laa di darahimi koppar yi ñu fi dajale taxu ko fee ñëw kii maamam lañ indi ay gaali xaalis ci njëriñ néeg bi mu nekk di senn mu jël xaalis booba di ko fàtte bën bën yi mag ñi daw ni ko mbàkke lii xaalis la mu ne aajo lay faj te lii moo ci sama aajo kii way kat yi da way yonente bi sallallahu alayhi wasallam yeb yëpp bëri na maamam moo ci musa wax walam urid zahrata dunya lati tatafat yada zuhayrim bima asna min abiyati balim tadaxtuka ya mawlaaya mubtaghiyan min karida ba'da ma tamkhul khati'ati bëggu ci mbub bëggu ci dàll wu sol bëggu ci aw tàgg wu mu beug ki mamam motax Serigne musa ki mamam le Serigne musa Ka ni ko yaaraw ña daa janoog rasool ngir yaa liggéey ba am wusul ba def xalifatu rasul kawe nga mboolem xarnu bi kii baayam bi jamono naqaree la sëñ Abdul Aziz bind leetar ne ko jamono ji toll na foo xam ne si kenn mënu cee sakku ndimbal ci suñu borom ku dul yow mu ne li gayrika la nasku ilahil wara amra wama illana wama illana illa ilayka tijadahra ba bam àggee ci suñu borom nan ko fa min mustakin faqran wa min mustakin balan suñu borom soppi lépp jamono ji mu neex moo tax woykat ba ni ko yaanu moom ngir sa baay baanu moom sañ nga noo jënd ay saba dooro kon euh, kii maamam moom la sëñ Moussa Ka wax ne fu mu teew ku wopp mu faj ku dee mu yëgal boroom la muy ñëwee fii nag du ay koppar du bu neex du ay ganaar kóllëre wa awfu bil ahd innal ahda kaana mas'uula lu dul alxuraan nag soxlawu ko saa soo ko dee xaaree ci barab mu naajee ñëw xamal ne yittee lislaam a ko tënk amul xaar ma yàlla nit du xas nit ci waa këram deful xejj buy jël saahiram sànge baatinam moom mii xañul nit mbirum biiram xañul nit mbirum kawam borom saahir ak baatin moo tax ñu topp ko da am loolu nag ku ko am xam ne am nga lu jafe bëgg ngan rek ni doomi sëñ mu lu ñëw ci yow loolu yombul day am jikko yuy dañ koy gis yow ba mu doy leen ñu mu jaral leen jóg ñu mel nii la sëñ wax zur man tuhibbu in ñu mel nii la sëñ sëñ sëñ Tuubaa doon wax naan ñu mel nii la sëñ Tuubaa doon wax zur man tuhibbu wa in satat bi kat daaru waxaale min dunihi seelun wa awaaru sëñ bi nag chef ndax la mu saf ka ko macce ko xam waaye lim ci biir lim def rek mooy la sëñ bay jaxate waxoon sa maam sëriñ bi noo ngi sun mbattu saa ngi sarax nu barkee tefam ñu yéege ñu di nu yaakaaroo ñu di leen ñu di leen yaakaar fu ngeen mën a jëm mbàkki ñu naan leen addee jàngi ñun nag li nu war nag mooy ah, képp ku nekk ak sëriñ bi ñu nekk ak moom ndax moo fi fal ku dee faa daan ba muy nuru waaju daa daane te moo fi fal waaju daa ñeetaan ba muy nuru waaju ku daa reetaan te it sëriñ Cheikh li lay wax sa mbir yow da nga bàyyi suñ sëñ Tuubaa amaana sa maam am na lëb cër waaye la sëñ Bay Jaxate waxoon waaja ba ba waaje ko ñàkkee teggin waaji ni ko te sëñ Bay waaji ni sëñ Bay Jaxate wool mbooloo mi ñu duma ko mu ni ko ku lay bàcceti ndombaaka sàkku ci yow bëri demal woowi ndaanaan mu daan ko te ñëw tëri bu ko ndaanaan daanee bu kenn yuuxooti woo wóoti far ne leen ko ndaanaan a ngugu lu yàgga daan sëñ Tuubaa nag mënuñu ko wax lu luñ ko waxul woon ndax keroog ba ko sëñ Bay Jaxate waaye amul lu mu ko lu mu ko waaye dañu ko tagg nan la ba tagg yëpp rek wenn tagg fi des muy jaajëf Xaadim kon sant nan bu baax a baax a baax bëgg nañ nag it bu baax sëñ Cheikh nag li nga def ci bis bi lépp dang ko lebal ku jara a lebal koo xam si da am da ñeme borte da da ñeme borte amuk pay ki nga xamé ni mo bu doon ko xam ne si dañ koy jugé dañ nan duggal na bopam ndax dafa wax ni waqdil hawaij allazina damu fi xidmati wahab lahum maram waye nam wax ni la liggéey fofa dañi tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmatin aw bi khubbin aw hadiyatin emploi yi yoy yooyu duggé ci entreprise bi waaye ni leen ko yombalee nag moom Sëñ Tuubaa mooy gëm dëggal ca dëggu nag ndax da di da dex ku soobu ni mes bu génn xam boromam ku ku soobu dex na xam ndox te wattum ndox lewet na ca kaw nag te wax ca biiram ku sàggan sànku faw te lab te doo duy doo set doo setal doo doo xam boromam melooy bàmbaa ngi nii nag waa ju xamul na dégloo waaw li sëñ Touba nekkee woon ci njaareem nekk ko ci jolof nekk ko ci réew mii ba ñëpp nangul ko loolu yi du du ay caaxaan te yàlla li muy maye lépp du maye lu muy nangu bi bi fi sëñ tubaa jógee confirmation bi bi mu doon joxe da ko joxe ci sëñ Fallou ñun nag Baye Fall yi fi nekk di ay taalibe bi li nu war mooy ndigal tey góorgóorlu Cheikh Ibra Fall day bi nga xamee ne tubaab yi téye nañ sëriñ bi lu mat juróom-ñaari at yoo xam si amuñu ci moom leetar wala benn bon bu jóge ci moom bi benn waayu ab sénégalais di dox benn waayub sénégalais bi muy dox ci ca réew ma sëriñ bi ni ko yow de dafa mel ni nit ku ñuul nga mu ne ko rawatina di ab sénégalais waa ji ne ko waaw mu ne ko xam nga Ibra Fall mu ne ko xam naa ko mu ne ko dama laa bëgg yó dama laa dama laa bëgg yónni ci moom yóbbante ci moom waa ji ne ko boo ma ko waxee day danaa ko def sëriñ bi bind ab leetar jox ko ne ko bii moo ko moom yeneen leetar yi joxal ma ko diw boo ko joxee dana xam ñu xam nañu ko moom keroog bi ndaw li dikkee rek ne Cheikh Ibra Fall sëriñ bi moo ma yónni Cheikh Ibra dana dañu nañ ko wutal pànn ñu wutal ko paan mu nangu këyit yi waaj yor jël këyit yi jël waaj yi def ko ci paan sangu ko ba mu set ak yére yaag yooyu yëpp ni ko toogal ci lal bi ndox ma mu naan yi ci des mu jox taalibe yi ba pare waaj yi fi mu toog ku ñu yónni rek ñu tax ñu tàmb di la jox di la jox addi kon euh, sëriñ bi sant nan bu baax a baax a baax cheikh ibrahima al jóobul machaari yu nag dafa waxoon ne fa kullu madaxin baliirin qiila fi rajulin fa anta chaaxibuhu yaa ayyuha rajul tagg wu mat jub ñu koy tagg góor yàlla ku mu mën a doon moomu ko seex Mat Bamba yaa ko may kon nan tàmbalee ci mbiram yam képp it ci mbiram tey ñaan ku nuy seet fu dul sëñ Tuubaa bu ne gis naa ko buñ jàpp ni nag sëñ seex mi bëgg ku ko ganee si rek moo tax sëñ bi ñëw sëñ bi doxul ci yooyu doxul ci yow lu lislaam nekkul nekku ca xam nga li ñuy wax ak bari wax ak rew lamine daa nuroo te bokkul ki mëna wax lepp rek ñu tek ko ci kaw ndigal ub yonen mu joge ci Cheikh Mbacke ibnu Serigne kharim Awa di kilifa dekk bi ci yoonu mourid bi nga xam ci lañu yalla bolé mu tegon ko ci loxop rakam bi di turandu sëñ mohammed muntaha mi muy sëñ muntaha me taxaw ci sëñ Mourtala jëlaat kàddu gi ne ma comme sama wax dafa xaw a yeex dama bëgg nga jàllaleel ma kàddu gi kon sëriñ bi sëriñ Saliou Mbacke moom sëñ Xaadim Awa Ba mi ngi lay nuyu di nuyu bu baax a baax a baax a baax sëñ Baye Cheikh Jimbira ak njabootug Cheikh Ahmadou Jimbira gépp ca kaw ba ci suuf te yàlla dogal na sëñ Baye Cheikh Jimbira mii moo nekk ca kaw ndooyal ndax mooy xalifa bi serigne bi serigne Saliou Mbacke neena mo beggone bëggoon bopam ñew yendok yow tatam la teru la tatagal la wan yalla dafa dogal fan yi yaramam dafa xawona libet nga xamni ni ci guddi sax lay doora di am mbekté mu reey reey reey ci mbekté mi nga xam mom lañ fi fekk muy serigne cheikh Jimbira mi nga xamne mom la téro cheikh mamadou murtala mbake mom cheikh mamadou fadal ko ak bokki kebemeer yépp and ko ak suñu buntu ci serigne touba ci kebemeer muy serigne khad euh, serigne saliou mbake bu serigne khadim awoba mom cheikh mamadou lamin bara bi nga xamé né serigne baa ñew niko borom kaddu yi fi jiitu waxé jëm ji di ab cëram muy serigne murtala mu serigne khadim awoba mi sëriñ xaadim doonoon xaritub sëriñ bi lool ñu bokk sëñ baara bokk sëñ fallu waaye ñoom ñaar ñu jege woon jege goo xam ne seeni xol a ko fas ngir seen way juree nu ñu meloon ñu jaxasoo jaxasoo googa di ko dund sëñ ba sëñ xaadim da daan toog ba guddi mu téléphoné sëñ Mutalla mi ne ko ñëwal dama rëbbi woon tey te damaa togg reer ñëwal ci reer bi reer si ñu dem mu dem reeri ca moom ñi jaxasoo ci yu bare baree bare bari ba loola moo waral tey tur wi taxaw ci gannaawam mu tuddee ko mu Mourtala mii tey di doomam di sëriñ Xaadim Awa Ba di bàyyam mu tuddee ko Cheikh Mourtala Mbacke Falilou mii jébbal ko léppam moom it nu koy sant bu baax di ko gërëm ndax yëg na pas-pas bi bàyyam amoon ba tax mu tuddee ko sëriñ Mourtala Falilou dundal na ko it te li gën a neex sëriñ bi ci dundal gi mooy ni mu ne ni mu toppee ne ñàcce ci rak ci magam di xalifaam di sëñ Xaadim Awa Ba ci moom muy sëriñ Saliou Mbacke mu sëriñ Xaadim Awa Ba ndax sëriñ Saliou day jëmm joo xam ne ni mu taxawoo kër Serigne Khadim Awa Ba yàllante woon kuy dem di bàyyi gannaaw bàyyi ko mel ni Serigne Saliou mu Serigne Khadim Awa Ba Serigne Khadim teel na fi jóge lool bàyyi fi jabar gu sew gu toll ci ñu war leen a xamal ak war leen a teete ci àddina te àddina bari ay gàllankoor sëriñ Saliou jóg gisul boppam gis Serigne Khadim Awa Ba rek fab rakam yépp teg ci gannaawam seen bët du xonq mukk dem di ko fekke ñi ci war a jàng ñëpp moo leen yóbbu ci daara ñu jàng alxuraan ba mokkal ku war a jàngi xam-xam moo leen yóbbu nga jàngi xam-xam gànnaar jii rek ba nga ci nekkee weer wu nekk dana wàññi lu mat cent cinquante mille fekk leen gànnaar wala mu yónnee gànnaar ngeen ñoom yittu leen ko ngir seen yitte bala ñoo soxlawaat loola mu wutaat lu ñu toll yóbbul laat leen ko di leen taxaw ba seen àll yëpp noppi kenn ku ci nekk loo doon tey gannaaw sëriñ Xaadim Awa Ba grâce sëriñ Saliou Mbacke mu sëriñ Xaadim Awa Ba mu jël jëmu jii di turandoo sëriñ Moutala Fall lu teg ko daare alxuraan jee ci loxoom yorloo ko ko mu yoral ko donga ya yoral ko dëkk ba yoral ko daara ja yoral ko jàkka ja di ko ci liggéeyal liggéeyu lislaam bi maamam doon liggéey loolu nag dafa neex lool sëriñ Moutala Mbacke Fadilou mii ndax tey moo ko gënaloon mu dégg sëriñ Moutala mii ci leneen waaye ndokk ba mu ko déggee ci gannaaw sëriñ Saliou mu topp ko noonu ndokk ba mu gisee sëriñ Saliou jox ko liggéey bu toll noonu mu yoral ko ak teggin yi ak yar bi loolu moo waral mu def lu rëy. lim def lu rëy mooy lan lii sëñ Cheikh Jimbira def tey mooy am gan gu toll ni sëriñ Moutala mu Cheikh Mamadou Fadal moom it cëram ci sëriñ Moutala Falilou ngir jëmmi sëñ Xaadim dafa tax mu sàkk bis ca Kàndala gee mu nekk di fa liggéeyal sëriñ bi ne ko damaa bëgg at mu nekk ti nga ñëw fii gane si ma fi ci kër gi Kàndala gi ma nekk ci daara ji ma woo bokk yi ak xarit yi ak wëlëre yi ak taalibe yi ñu fekk la fi xam ne yaay sama cër ci sëriñ Touba ndax yow la ma sëriñ Xaadim ba sédde Xaadim aw ba sédde yaay sama kilifa yaay sama lépp du ca yemoon képp bu doy ci sëriñ Moutala Falilou màggal gu mag gi ak màggalu Kazu Rajab ku ne xam na ne talib yëpp ak jullit yi fii la ñuy jógee dem màggali waaye day ànd ak mbooloom ba gis sëñ Moutalla Falilou ba siyaare ko ba mbooloo siyaare ko ba mu leen ba noppi fu ñu jëm ci mu doon fa jëm màggali ji fa su dee Kazu Rajab nag këram lay wàcc famille daal ñoo ko jox ba ba mu fay jógee mbooloo ma fii ak ci màggal gi ak mbooloom ma nga fa taxaw ci wetam ànd ak moom liggéey bi ba mu sotti kon nag loolu bu ñu ñëwee Kébémer gi mu dëkk ñëw Kébémer gi nga xam ne mooy cëru waajuram ñëw ci Kébémer nga xamni moy mooy kërub sëriñ Saliou Magam ñëw gane ci su kilifa gu tedd gu melni serigne Cheikh jimbere mi njabot gu toll ni gii fi tew tew fi amna ci lo xam faawu ñu sédé ko nit ñi xam digënté serigne Moutala ak serigne Fallu mu serigne Fallu ak serigne khadim waye digënté ak serigne Saliou waye digënté ak domam ju baax gi di serigne Moutala taxaw ci wetam ndax kat wama sayyidna ila naa ma alim duñu séré lu ñu xamul lu ñu xam rek lañuy wax buñ ko xamul noppi bu la du tay muy diggante Serigne Touba ak Seex na Seex Saadibu xayr Seex naa Seex Saadibu bi ñuy yóbbu Serigne Touba gànnaar jëmmi Seex na Seex Saadibu taxoon ndax Serigne Touba tubaab yi dañ ko jël di jar bu weex jéem ci moom liñ jéem ci moom lépp te mënuñ ci moom dara ñu indi ko mu njiit waa Sénégal ñu ne buñ ko bàyyi senegal ginnaaw dafiy tàmbali di faat ay yëngoo ki yëf nañ ko jël yóbbu ko gànnaar parce que der bu ñuul bu gisee der bu weex te muy nitul islam comme moom déception bi nit ku ñuul di am ci bu gisee euh, der bu weex loolu taxoon ñu nañ ko yóbbu exilé ko ca Murtari yóbbu ko fa Seex Seex Seex Saadibu bu dee jaay l'islam dana ko fekk su dee jaay yàlla dana ko fekk su dee leneen séeréer leneen du mën a dem ba am doole ci dara moo tax keroog bi tubaab yi di laaj Seex na Seex Saadibu bi muy jël bi ñu jëli saa sëriñ Tuubaa mu ñëw dañoo jolof dañoo laaj seex na seex Saadibu tubaab yi dañ koo laaj ne ko comme yow yaa taxoon ñu andi ko léegi yow lan nga xam ci sëriñ Tuubaa mu ne leen sëriñ Tuubaa de am na ayib ñu ko lan mooy ayib bi sëriñ tubaa mu ne wa ma xaybuhu ila ibadati rabbihi wa naful wara fi subhihi wa masaihi ayib bi sëriñ Tuubaa daal mooy jaamu boromam te moo yorit njëriñul bindeef yi ci suba yi ak ci ngoon yi kon bu diggante boobu ak signature boobu juddoo di dox ba ak si ci say loxo tey nga laat ko waxaat ko addina jàngalaat ko njaboot gi alhamdulilah rabbi say seex jërëjëf loolu moo waral Serigne Moutala bu Seex Mamadou Fadal sol daal lam ñëw fii tey parce que dafa xam lan lay fekk si fii xamit ñëw gi lan lay signifié ci lislaam kon taxawaay boobu moo ko indi fii tey muy ngan goo xam ne ngan gu rëy ci xolam la tey xatoon na xat goo xam ne su doon am ngant mën naa am ngant mën naa waaye ci suba la ma tàmbali ne ma xam naa dañuy naaje rek waaye faw dem rek ci suba la ma tàmbalee wax dañuy naaje de waaye xam naa dem rek waaw kon li ko tënk lépp ñu ko tënk waaye mi ngi am nu muy la xarcee ak tënk-tënk yooyu ba mën koo jéggi ñëw fekk si la waaye munta mukk nee na la bis faw day ñëw ndax xam ngeen ne faatu moom lu mu xëccool wat ko te kii nga xam ne moo faatu la ñoo bokk lépp soxnaam nelaw te muy jëmm joo xam ne moom it nii sëñ xaadim awa ba def def na ko tudde na sëriñ Moutala Fallilu doom jox ko kon kooku bu soxnaam faatoo am na gàllankoor ba noppi nag bu fekkoon ne relation boobu rek taxoon na mu doy mu doy waaye moom sëñ Baara mi faatule moo ma wax ne ma lépp dama ko teg ci loxoy sëñ Moussa rek lépp dina ko ci loxoom na wax moom moo ma waxal ba mu bi waxuma ko de sëñ Baara moo wax ne ma lépp dama ko teg ci loxoy sëñ demul ca jullee ya julleewul fekkiwul fa ñuy denc moom moom borom këram lépp dana teg nag ci loxo sëñ Mutulaa rek waaw nga xam ne moo ko jullee denc ko ba noppi wala di ko demee ci kër ga waxtaan ak mbooloo ma ba noppi door a tàggatoo ak ñoom jëm si fii kon loolu rek day wane ci sëriñ bi teg bis bi wala fi mu teg borom bis bi ko woo muy sëriñ Seex man bi may sëy ba dugg dama ko ne lépp maa sama gars yi ma man am kasetu waa kër sëñ Mamour am kaset bu yàgg boo xam ne bi ma ko amee léegi ëpp na ñaar fukki at ak nanga ma nga sama néeg ba tey ba di ko déglu te boobu mosuma woon a xam ne am di ko digloo ko bëgg nangam kaset baa nga ak man ba tey tey rek maa ngi koy fàttewaat léegi ci salle bi nit ñi man xamu woon ne am kon relation bi dañu relation du hasard du hasard du hasard lu yàgg la kon loolu da nga ci sant yàlla bu baax sëriñ bi nag fonk gi mu fonk bis bi ci ni ma la ko waxee moo waral bi muy ñëw mu ànd ak ñoo xam ne comme ni nga waxee woon ne nañ ma yebalal doomam wala nañ ma yebalal jarbaatam wala nañ ma yebalal kennam képp wala taalibe mu ñëw présenté wu sëriñ bi daa fag ñooñu ñëpp far ànd ak ñoom ñëw comme xasoon nga ko limal ñooñu ne kooku ci amoon dara motax tax fa kenn serigne bi indi na sëriñ Fallilu Mbàkke kim tudde Cheikh Mamadou Fadal mi ngi nii toog di domam indi na sëriñ Abdoul Fatah mi mu magam Cheikh Abdoul Fatah Mbàkke mu Cheikh Mamadou Fadal mi ngi nii tok serigne bi indi na sëriñ Aboul Baraka kim tudde serigne sëriñ Abo mi khalifa Cheikh Mamadou Fadal kim ko tudde indi na ko mi ngi nii tok serigne bi indi na ki mu tuddee Salihu Mbàkke way juróom bu baax wa di sëriñam Cheikh Salihu Mbàkke khadim rasoul kim ko tudde indi na ko mi ngi nii tok sëriñ bi indi na sëriñ Seex Mbàkke Omar di rakkam di léppam di ab taalibi di lépp di xarit di wëllëre mu ngi nii toog sëriñ bi indi na jarbaatam muy sëriñ Moustapha Ndiaye mii soxna maam Faati Falilu mi ko jur ak sëriñ Moutala ñoo bokk ndey ak baay mi ngi nii toog sëriñ bi indi na ñu kër ga gi nga xam ne mooy yore mboolem daayira yi maanaam mooy président daayira yi di taxaw liggéey yi muy sëriñ Ousmane jeek mii moo yore moo yore fédération yore taalibe yi ci wàllu dayre yi ak taxawaay yi ci kër ga Ousmane a ngi nii toog moo jiite mbooloom taalibe yooyu mi ngi nii toog représenté leen sëriñ bi indi na sëriñ so mii di wax ak yéen di jëwriñam ci digganteem ak donga yi muy ki muy yebal ci donga yi ñiy jëflante ak sëriñ bi mu yebal ma ci ñoom may jëflante ak ñoom ci sëriñ bi di jóge ca donga yi ñëw ci sëriñ bi jëflante ñoom ca donga ya ne ci seen ne ci digganteem ak donga yi yore it kàddoom suy wax ne waxal mu wax ne nangam ma wax loola way laa mu ne ma waxal ak nit ñi ne nangam moom it indi na ko muy jëwriñu kër ga di jëwriñu dong yi aju ci moom yëpp mi ngi nii toog kon loolu day wan Serigne Cheikh ni bis bi toll ci moom ak ni ngan gi toll ci moom ak ni mu rëy ci moom waxoon naa la ne la ñaari oto la Serigne bi jël ak oto muy ñetti oto benn oto bi dafa am gàllankoor mu ñu mën a yebal ko ne ko yow mën ngaa far yewee ko andi ñaari oto waaye Serigne ci bis bi leneen la. waye nak waye nak li, ab tambali la li ab tambali la te ab tambali mel non ah ab tambali mo mel non ab tambali day woyof manis na xamne tambali bi woyof na waaye fa mu mujj koy ñaan yoonu murit bi mi tambali fi ci Mbàkke Kajoor gi ngeen deenal dañ doon wax naan tak takul mbob la tak takul mbob moy jékki-jékki ne bérëx bérëx bérëx bérëx di fay do am sax ab dom do am ay xal do am dara xoolal yoonu murit ba tey jii fii ñu toog am na ku jébul tey ci yoon wi kon yoon waa ngi dox ba tey sëriñ baa ngi ànd kenn ci jëwriñ ñi it muy Aliou Gayaga moo yore oto sëriñ bi moom it mi ngi fi te ñëw ñi ñëpp kenn ku ci nekk ndawul sëriñ bi nga loo xam ne foofu fi sëriñ bi waroon a dem te mun faa dem bu la fa yebalee jàpp na ne dem na kon bu boolee ñoom ñëpp ànd ak ñoom ñëw teew si fi dalay wan rek gëdd jëm jox bis bi ak sa jëmm ji fi ko teg lii nga def nag muy kóllëre gi dox Serigne Touba ak Cheikh Sadibou nga dundalaat ko kóllëre googu Cheikh Sadibou dundale woon ko yónni sa wayjur ci Serigne Touba mu di ko dundal ba nga ni sii tey loola moom la Serigne bi ñëwaat di yeesalaat wëllëre woowu te Serigne Touba bi ñu ko ba muy xëy di ñibbi Sénégal am na wàllu yu naar wu ñëw ci moom ne damaa ñëw di fasanteegee wëllëre Serigne Touba ne ko nangul naa la daa ko ne nit a wëllëreem xam nga dañuy jéggee mu ne ko mu ko doo jéggi ba noppi woo sa wëllëre mu ñëw jéggi doo ko yebal mu jéggi ba àggalit ngay ñëw di jéggi nit ak wóllëreem xam nga nu ñuy jéggee siraat mu ne ko déedéet mu ne ko da teg sa tànk boo ko yëkkatee mu tekki basam bu yëkkatee mu tekki basam nit ak wóllëreem noonu la ñuy àndi jéggi siraat ëllëg daan ne ko maag yow noonu la ñuy àndi jéggi siraat ëllëg wóllëri wun fas wu ne ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa nag dugg na ci biir wóllëre Sëriñ Tuubaa woowee kii bu Sëriñ moom te lii sëñ Seex seere ci moom mooy dëgg néewul rek loo xam ne Mbàkke laa sant ci askan wi laa moom dafa gis liy jëriñe ci yoon wi sëriñ Tuubaa wane ko woo way juróom di sëriñam di Cheikh Mamadou Fadal jàngal ko ko mu jàngewaat ko ci sëriñ Fallu di dund loolu sëriñ Tuubaa woote ca Jolof woo sëñ Modou Sall sëñ Fallu woo sëriñ Massamba Mbàkke caatu Mamour Anta Sali woo sëñ Mor Roqay Bousso di jarbaatu sëriñ Tuubaa Roqay Mbàkke jur ko moom Mamour Anta Sali mu jàkkaarloo ak ñoom ni man doo bàyyi kenn Cheikh Moustapha ak sëñ Fallu xam ne ñoo moom loolu mu ne man ma magi kenn Cheikh Massamba mii caatu Mamour Anta Sali xam ne moo loolu mune man duma la jaay kenn seigne Mor Roqe bu sumi Roqe Mbàkke Mamour ànd seen jur xamni mo am loolu mune ni ko waral moy alal yàlla la yor dafa mayeewul saraxewul des koy jaay njëg nak moy aslamtu nafsi ku def talibi rek ko taf ci man day ma di la digal ngay def di la tere ngay bàyyi may sa bàyyi di sa mag di seen jaay ko def jotuma ak yow dara kero lañ jaayante jox Seyxul khadim sen bop serigne Falilul dem kërëm ci jaaj wa jakkal Seyxul khadim nan ya ayyuha sayxu nafisal murtaja ya fatihan ma qablu kana mirtaja birtu banni watiya bil irada lakum li kay ustabi xarit wa xaada bis ni ngi jaayante ak yow lii di wax na bàyyi nga ci man tey maa ngi jaayanteeg yow cofeelu sama sëriñ nga doon tey ma jaay ak yow taalibi gi jëndanteeg yow ak taalibi ci biiram soo ma nangulee taalibi gi nag ba ma moom ko joxaat naa la ko addiya ndax njëg moom ku jaay dañ la fekkee da ngaa jënd micro bi it micro nga jënd da ngay joxe xaalis waaye micro bi da nga jox moom yaa ko moom nga baal ma ma sànni ci ñeent benn kàddu waaw maam borom Tuubaa dafa waxoon ne su man nasiihatu li ahlil baari xayrun min al jihaadi fil kufaari mën ngeen koo firi dëgg la ginnaaw aw ma lenn lu ma mën a defal sëñ Tuba lu dul alxuraan dëgg la wér na waaw wér na wér na wér na wér na wallahi dëgg la wér na loolu am na ba noppi alxuraan rek te moom it amul lenn lu muy soxla ci addina lu may alxuraan ak sëñ Tuubaa ba mu amee njëg gën a mu ne ko jox naa la ko addiya mu ne kon loo bëgg mu ne ko nekk ci sa biir rek suñ la tuddee tuddaale ma waaw suñ la tuddee tuddaale ma moo tax talib yëpp ñooy wax naa sëñ Fallu moo ne maay sëriñ Tuubaa kon looloo tax dafa dugg ci sëñ Tuubaa alxuraan mi nga wax gànnaar la sëriñ bi Tuubaa nekk sëriñ ab naar ñëw ci moom ànd ak ñaari naar moroomam muy ñett ñu ñëw ci sëñ Tuubaa bind ki nuyoo ak Seexul Xadiim ku ne wax yitteem seigne touba faj ñaari ité yi dess laaj kenn ka dess lu yité mu ne ko man dama bok ci askan wo xamne alcorane rek lañ bëgg ku ko fa mokalul do tekki dara te man saam xel da na xari luma koy xam lumay xam lu dama koy yéxa xam suma ma ko xamee dama koy gaaw faté fàtte bëgg ko sol alcorane seigne touba mom dane malakanil qur'aana tamliikan yaddoom malakanil wal huluma alcorane yàlla momako mom lo mom gu sax wal bëgg ne alcorane xam-xam dama ko mom alxuraan noonu mu ko moomee moo tax ma bëgg laa firil naar boobu naar boobu dana Serigne Touba alxuraan la soxla ko ma ko sol mu tax na ko wutali sama room yi wut mu waxaat loolu mu ne ko wutali sama room yi ba mu yetti yoon mu waxaat loolu sëñ bi ne ko demal ca daara demal seet sa mbir ba raxlu la ñëw sëñ soxaaj bi moom Serigne Touba moo ko nettali nee na dem na ba seen weeru koor ga ba mu seenee weeru koor ga moom sëñ Touba ba léemu ko ba àggal la xool ci mbooloo ba seen naar ba mu wax ko mu ñëw sëñ Touba bokk ko mbokk mu dëgër nan ko aateete ko alxuraana tilawatan wa tafsiran wa tajwidan ba àgg toog fam toogoon moom Seexul Xadim teg ko ci kanam mu toog ci kanam jàkkaarloo moom sëñ fab loxoom bu tedd ba xëcc ba bi ko iqra mu tàmbalee bàqara di tari ba innama sabilu am ñaar fukki isib ñu nodd gee sëñ Tuubaa ne taxawal mu taxaw ñu noddu gee daane daaneel suñu ne ko ñëwoon dem ñu ànd dem ci jàkk ji julli mu génn mu ne ko dellu ci daara ji ba suba mu xëy ca benn fanu koor ga yenn ba ngoon jot sëñ tubaa génn julli timis ci jàkk ji do koor gi julli timis ba àggal génn ci mbooloo mi xool ko seen naar ba wax mu mu si sëñ tubaa wokkaat ko mbokk ma di laay booba naan atletikal qur'aana tilawatan wa tafsiran wa tajwidan baag fa mu toogoon toog loowaat ko mu toog jàkkaarloo ak moom mu xatat ci booba ne ko iqra mu tàmbalee innama sabiru di tari boo laa tujadiloo am ñaar fukki sëñ ñu noddu gee sëñ mu ne ko taxawal mutahaw ñu dem julli ge sëñ bi ne ko ci daara ja mu dem ba ci suma señ ñaari fani koor ga ci mbokam ma déggal les ci téere ba lépp duma ko jàng ci kenn kon ko mom alquran mom alquran mom xam-xam señ Falilu mom nak di du wër sëñ tuba moom bindal sëñ tuba alquran alxuraan fanweeri kamil ak juroom ñent kero nga ko joxe juroom ñentel ba mu ne ko yàlla sabaram neena nee nga bindal ko kamil melni nii alxuraan keroog bi wàccee ci rasulullahi ba ci sayxul xadim nag kitaabun karimun min karimin mukarramin li abdin karimin kitaabun majidun min majidin mu majidin li abdin majid ci lam ñu sëriñ Tuubaa rek lañ mës dégg sa borom nga bindal ko nopp suñ fal donc mos a dégg ku ne nag doomi soxna nga jàng nga alxuraan ba mokkal bind ko sa bàyyi mbaa sa nijaay mbaa ku la soob waaye sa coobare nee na ana loo koy jaayee mu ne ko naan ma ko ba xam neex na ko de mu ne gars yi kaamil bu wet ne ko sëñ Fall sa bay sa borom neena ana la koy jaay mu ne ko yow Serigne Touba mi ku la xam wala mu yaakar la wala mu sopp la ak fu meuna faato ci adina fuñ ko ne jeeyi ci bir bammel naa ko nangoo ak sama yaari loxo jebal ko tabal ko àjjana Serigne Touba fab kaala fub jimi ñu ko fal lu lépp na lool mu ne ko muy amul bàyyi gi de ndax jar nga ko te amna na ko Serigne Touba ne teg beeg bu ne bëri fàtt ci bir néeg ko ne ko fal mu ne ko bakki ne ko sa borom neena jaral nga ci loolu la sëñ Fall sëñ Mourtala xëy tay jebal mam aw jaañ Serigne Falilou door ñëw fi ci barab bi nga teeroo ko fi alxuraan terale ko kon moo tax bu turandoom yi di dund ci alxuraan ak liggéey ci alxuraan ma ne la am na mbégte ci moom ndax bu liggéey moom mii ci alxuraan la doon liggéey mbaakool gi la doon jànge kër sëñ mu si la fi la bind kaamil alxuraan am bi yóbbu ko màkka mu aj sëñ fàllu yóbbu ko mu aji dellu si bind àggale sëñ fàllu ne ko kaay dem jàngi madinatu munawara fa la doon jànge ba muy dem mu ne ko yebaluma la madina boo demee ba ñëw dooy doo wuuteeg ñi yaroo ci sa keppaaru maam bii xaadim rasul sëriñ Mourtala Falilou doo ko gis ba def ne ak na ci bopp bi ñëpp jàng ba yéey seen i kayit fa la jàng ba yéey ngi nii toog kenn xamu ko ci moom kon ak moom ci la liggéeyal sëñ ba sëñ bi sëñ Fallu gërëm ko sëñ Fallu leetar la bind ca Madina mën a war yóotee sëñ Fallu sëñ Fallu wëlbati leetar ba dal bind ca gannaaw ne ko sëñ Mourtala maa ngi lay gërëm ci yaari yëf sa xalima gi nga xam ne soppeekuwul ca mbaakool ba fii ak sa waxinu taalibe bi ngay waxee yàgg na ci lii kon nag alhamdulilah rabbil alamin ñun ñi nga xam ne noonu ko yàlla cëre sant nañ yàlla suñu borom ndax am nañ ab cër yàlla na fi yàgg loolu te ànd doon rek ngir leeral dara ci li nu fi tax a ñëw ndax xëy na sëñ bi du àgg ca loola su ko defee ñun ñi nga xam ne nag ñoo ko war a wax ñu waxaane ci lu mel noonu doorewul di ko jox sëñ bi kàddu gi mu wax li mu war a wax ñu ñaanal mbooloo mi ñu dem ba beneen yoon te xam ne lii ab tàmbaleel waaye kanam la jëm day yokk waaw kay jërëjëf sëñ bi sëñ maam Baara Mbàkke ñëw na léegi ci jataay bi taxawaay bi jërë ngeen jëf jazakumullahu xayra ak ba jaabi mm, waaw bisimilah may leen ko nag te déglu tuuti mu waxtaan barkeb Serigne Touba mu ne xam naa ne waxtaan wi day xaw ma lu may waxeeti ndax ñi ma jiitu li ma lañcoon lépp ñu lañ ko loxar bi wax ko <laughs> ah noo ngi jëg tuy déglu <laughs> naa ngi <laughs> wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi ne mi ngi nuyu taalibe yi teew yëpp di nuyu bokki jullit yëpp góor ñi ak jigéen mag ak ndaw gan yi ak dëkk yi bàyyiwul kenn ci yéen ne mi ngi leen di balu àq te leen di jéggulu itam ndax suba ba tisbaar yéen nga toog ca naaj wa di ma fa néggandiku mu ànd sama waajur wii ngir seen waajur wii jëm ci waajur wii wala sama mag muy sëñ seex mii sama lepp dal a ngi nii naaj wi na kon nak ma ngi len di balu ak ci loolu waye nak limi tang tang day ñaan na Serigne Touba mu fegal len ko sen tangoru euleuk barke Serigne Touba ñaan na ko ko de. macha allah. waaw nee na mi ngi jégalu yax googoo ñëw rek ndax suñu mbokum taalibe suñu mbokum mbokkum soxnaam wàcc ab liggéey ñooñu lépp mu ma yaa koy taxawu ne amatuma ci rek nu ma mën def ne ndax faatu moom lu mu xëccool rek day daal di wat loola loolu rek ñu gàllankoor ba ñu yeex a ñëw kon nag jërë ngeen jëf mu ngi leen di jottali nuyoo Serigne Mountakha xalifa général des mourides ak njabootu sëriñ Touba gi yëpp tey ñaani yàlla ñu yàgg fi loolu ci barke sëriñ Touba. ak waay jur yu baax yooyu yëpp di leen jottali nuyoo sëriñ Abo xalifa Cheikh Mamadou Fadal ak njabootu sëriñ Falilou gépp di nuyu. إله إلا الله محمد وجد خارا خارا والخيط فارا لما جرى إلى الخمام ما مورج برنينا وبيق برا والنقص خرا لو أقارات بالحكام وواصل الأمين Ahmadou Mbacké ma ca Touba